Bye.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 fast food ngir ñi bëgg tacos shawarma norvégienne panini sandwich wala king burger pizza yi am na moyen grand modèle ak king pizza king drinks pour vous rafraîchir en eau boisson et jus naturel wax ñu foo nekk ñu livrer la hôtel gaaw si 77 171 12 12 77 171 12 12 king chicken numéro au Sénégal salaamaaleykum salaamaaleykum je boy Prince J sénégalais d'origine rufisquois original boy town aka l'animateur et le prince de la ville sama gars yi ngi nii ah ak benn structure benn label ak benn maison de production je peux dire comme je peux les appeler ainsi mais boo xam ne nii c'est euh, constitué de jeunes talents ah ay booy ñoo ko créé mais ay booy ñoo ciy liggéey tey nag ñu am lu ñu bëgg a waxtaanee ak ñoom am lu ñuy waajal am lu bari loo xam ne ni ñu ngi ci nekkoon di togg fan nii yëpp yéen a ngi yàgg di gis affiche yi nii mais tey dama ñëw pour ñu waxtaanee leen ci lan mooy affiche yi nii ak lan mooy Mën Jëf Show. ñu ngi toog ak le directeur de de la production. amiin amiin mën jëf. booy cee nag Amar. nice muy cool. tawfeex dëkk bi wax. zéré alhamdulilah. comme dëgg la ma baale nga nuyoog Rio Plus ak internet yeeg yëpp. salaamaaleykum maa ngi nuyu àdduna bi yëpp di nuyu suñu waa kër dèjà sama papa sama yaay xam nga famille bi yëpp ak waa MD yëpp bàyyi ñu kenn ak képp ku ñu mës a seexal ay affaire ñu ngi nuyu yëpp di leen siyaar. aja bro tey depuis quand la mën jëf ak lan lan mooy mën jëf sax waaye lan mooy mën jëf. ah mën jëf simple na quoi parce que moo bi firi na boppam da ngay mën def ko. ok yaa ngi comprendre dafa dafa ñëw naturellement quoi amul doonul benn affaire boo xam ne dañ dem di ko di ko di ko wër yi wala di di di seet si ruxu ruxaat dafa ñëw naturellement dañ toog aw ñu idée xam nga bëgg teg benn affaire parce que yàgg nañ di genre affaire yi. Mhm. avant même sax balaa nekk di rap xam nga daan nañ rêver genre affaire yi nii du coup buñ commencé di di traîner si dëkk bi di furaatu ay ordinateur fii ay micro deux mille fii affaire yooyu noonu. Mhm. ñu toog rek léegi dañu créé studio acaf bismillah am nañ studio nan lañ koy tuddee. directement mën jëf mën jëf bi mën instant yii ma la wax si maa ko njëkk wax mën ma wax Taal moo ko wax mënu ma la wax Ousseyn moo ko njëkk wax. mu ñëw naturellement. lu ñëw naturellement la quoi ah. ngeen mën li ngeen mën ba pare di ko jëf quoi. waaw parce que déjà lu ñu lu ñu mën rek lañuy ñuy def ah. ok te lu ñu mën kese la nit ñi di def. te nit ñi fiy ñëw tamit lu ñu mën rek la ñuy def ba nit ñi di ko gis aussi. ok ah. mu waral tey nga def mën jëf show balaa ñuy ñëw def dem ci mën jëf show depuis quand la mën jëf euh, nekk studio walla label pour de vrai nii. waaw parce que depuis 2017 xam nga la bu ma juumul le le le 27 novembre le 2017 lañ njëkk am micro. non lañ njëkk lañ njëkk a am ay genre ay mini baaful quoi. ok yaa ngi comprendre tobeex tamit suñu anniversaire war a ñëw le 30. yaa ngi comprendre eh, si ane boobu si même année bi 31 décembre bi lañ am la ñuy soog am benn micro di si di si enregistré et daan si enregistré yenn gars yi fii nii xam nga. Euh, <coughs> buñ demee ba si biir xam ne nekk lu ñuy def nii du yoon parce que même bu fekkee ñu ngi enregistré ñu ngi jéem a lijjanti xam nga ñu ngi ñu ngi ñu ngi traité voix yi ba nga mën ko dégg tamit du yoon. Mm-hmm. parce que ñu ngi enregistré sans sans carte son quoi. Mm-hmm. waaw après ñu ñu nekk ñu ñu ne léegi nañ bàyyi xam nga si la si commencé nekk si vidéo yi xam nga que leen nekk si rab bi yeneen gars si nekk. nekk say business ñuy dem noonu bu taal temps yooyu mu ngi doon def ay vidéo xam nga di comédie ñu nekk si noonu anyway quoi. léegi après si lañ si lañ si lañ toog xam ne ne studio bi mënatul dem parce que li tax ñu naan liggéey amu fi. Mhm. même bu fekkee nit ñi dinañ enregistré après nit ñi dinañ ko déglu liggéey bi amu fi quoi. après si lañ toog waxa suñ grand yi waxa waa gaale bi waxa maire yi xam nga wax leen lu ñu bëgg ba pare nekk si aussi di lijjanti kom ñoom. ok ñu jàppale leen tey ngeen taxawal li nga xam ne nii boo demee ci studio yu mag moom nga fay fekk. waaw ah, macha allah ah. tey nga ñëw depuis 2017 xaw ma 2019 ba léegi. ngeen nekk ci di xësal. Mhm. di di bay seen waar. di di di ci nekk muy mat muy metti yenn saay mhm. du mat yenn saay mu mat yenn saay mu metti yenn saay mu neex mais pourquoi ngeen bàyyi ba 2023 ngeen ne da ngeen di concert. waaw pourquoi ñu bàyyi ba deux mille vingt trois ne dañuy concert parce que ñun dañ jàppoon ne nekk si game bi kase nii nii di rab comme ñëpp nu ko ñëpp di defee genre du loolu mooy suñu bii quoi mais même bu ñu demoon ba bàyyi rab bi aussi am leneen loo xam ne dinañ ko mën a def si euh, milieu culture urbaine. ok yaa ngi comprendre. Mhm. parce que même bu fekkee black day day day rab même bu fekkee euh, man damay def ay vidéo affaire yooyu noonu yëpp. genre ñun centre réew ñu woon ne lépp daje na. Mhm. yaa ngi léegi nag euh, ren deux mille deux mille vingt deux les studio bi mat ren la am ay gars yi nga xam ne ñu ngi ñëw di fi job seeni son ay gars yoo xam ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi job seeni clip fii ak yeneen ak yeneen. e ñu gis ne ku si ñu si ñu si ñu si nekk ñëpp ku si nekk am na loo xam ne nii war nga ko wan nit ñi te à chaque fois dañuy dem ay concert di dem ay affaires yëpp te lu si soxla carrément du loolu lañ fay am. E, gars ne mais war na mën a nekk quoi yaa ngi comprendre parce que boo xoolee depuis 17 novembre la projet Blacko génnoon muy Derby Dope bi amul concert ba tey amul affaire yooyu te war naa am genre affaire yooyu noonu yëpp uh-huh. e, studio bi tamit depuis presque novembre bee passé la lépp impact xam nga uh-huh. ñu xool toog nekk am nit ñuy joobal am affaire yooyu am am am lépp quoi nuñ nuñ ko soxlaa uh-huh. yaa ngi léegi ñu ne pourquoi pas def show puisque am na ñu fiy liggéey te ñu lu ñuy liggéey si YouTube bi la yembala kii seen i xarit seeni mbokk xaw ñu mu demee carrément. Mhm. léegi nañ def show bi parce que bu ñu defee show bi dèjà fu ñu koy defee daw ñu koñu kenn daw ñu fen pour defee ko dañ ñëw ba suñ koñ ne fii lañ koy defee. fan ngeen di defee concert bi. Rufisque Darahman ay Numaadi. si côté si côté pharmacie bi. ok tali bi si pharmacie bi parce que Blacko fii la dëkk studio bi fii la dëkk fii la nekk yaa ngi gars yi fii la ñuy ñëw di joobee ñun ñëpp kon fii lañ dëkk quoi parce que fii la ñuy defee suñu lépp. ngeen ne nañ ko def pour une première fois suñu koñ représente ça c'est bien c'est bien quelque chose des rappeurs yoo xam ne nii ñoom ñoo koy def ça c'est le mouvement hip hop balaa ñuy dem fen ñoom bala ñuy dem di wàll yaane ji wala ñuy tëgg ji concert payant wala ñuy dem ci ay salle ils ont généralement l'habitude de le faire chez ah loolu mooy sama koona d' abord mais dama gis ci biir euh, studio bi ci biir label bi des rappeurs yoo xam ne ils ne sont plus à présenter au niveau de Rufisque partout un peu partout au Sénégal des gens comme Big Mo des gens comme Lil Jeuz Nitro Skills Hebdo Black O rappeurs yooyu nga xam ne ni tey boo tuddee seen tour rien que leur nom peut remplir une salle tout entière nga dajale ñooñu ñooñu ñëpp est ce que c' facile de travailler avec des rappeurs de ce wala am rappeurs yu yu ponkal yu mel ni yi nga am yomb na pour liggéey ak ñoom canaliser leen. ah mais méttiwul boo xamee li nga bëgg. Mhm. nit ki xam lu mu bëgg. day neex a nekkal quoi. ok boo xamee li nga bëgg dangay neex a nekkal. parce te ba te boo yaakamtiwul dara aussi boo yaakamtiwulee dara aussi da ngay neex a nekkal. waaw c'est vrai. ñoom dañ neex a nekkal parce que yaakamtiwuñu dara si lu ñuy def et lu ñuy def bëgg nañ mu doon qualité dañ si jël seen temps ñun aussi côté boobu la ñuy liggéeyee. tey lan lañ mën a xaar. Euh, jouru concert bi le 15 juillet samedi. samedi incha allah ay affaire yu garaaw rek. affaire yu garaaw comme na ay affaire ay affaire yu yéeme si si si côté bépp côté côté invité yi côté présentateur yi côté. waaw mais <laughs> waaw waaw d' accord loolu tamit jar naa souligner man je c' la première fois ma gis benn list wala chronogramme bu comme seen boss quoi parce que yéen tey euh, rappeurs yi ma gis ci track list bi. kenn du leen présenter milieu hip hop Rufisque ko. waaw ah, normal. waaw ne link yi nan la demee nu mu demee noonu yéen lan la. li seen fort. naturellement naturellement parce que déjà euh, affiche bu ñu koy lancé am na benn message bu si bu si àndaale. waaw c'est-à-dire yàgg nañ def ay ay affaire ay sacrifice pour si si si yeneen gars yi ak si ñëpp di dem fu nekk dem nañ fu nekk concert. Mhm. di dox demal ku nekk duñu xaar nga invité ñu duñu xaar dara dañuy dem seetaani. luñ fa mën a apporter dañ ko fay apporter. Mhm. yaa comme photo yu ma daan def si concert yi comme affaire yooyu. right right mooy photo yi ngeen di gis. mu am mën jëf prod ci côté bi. surtout samay image yi ngeen ko gis. kon kon normal aussi. Mhm. bu ñu leen invité ñi nga xam ne yàgg nañ si xaax ñoom yenn affaire aussi. te du du ay photo wala ay affaire yooyu noonu mais. juste wanante nañ respect bi seex nañ seex nañ ay affaire yu baax ba yegg si fi toll nii ba ñu war leen mën a invité. right balaa ñuy continuer ci dara dama bëgg ngeen xam ne tey la euh, rendez-vous est prise le samedi 15 juillet incha allah fii ci Daaru Rahman cité Aïdou Mady près de pharmacie ngeen ñëw ñu show ñu concert mën jëf moo xewle pour une première fois et benn structure la benn label boo xam ne ni yàgg nañ leen ràññee ci ay concert ñu demalante seq ak waa Tëngéej yëpp jàmm il faut gars yi ngeen teew représente seen doom it waa Daaru Rahman yéen ñëpp ngeen génn tëngeej sax laay wax ñun ñëpp ñu génn ñu support parce que je crois que ni jeunesse bi lii la manqué quoi initiative concert yombul euh, est-ce que am na ay sponsor gars yi tëngeej hip hop bi damay dégg ñu ne sponsor yi dafa dee quoi est que yéen am ngeen ay soutien derrière ñu leen dooleel. waaw wax dëgg neex yàlla euh, am nañ dooleel am nañ ñu si jàpp parce que hip hop bi nga ne nu ko lan. dafa dee tëngeej quoi dafa dee tëngeej. hip hop deewul ñun sentir ñu ne hip hop bi dafa dee parce que lu ñu bëgg a defee ñu koy def. ñu ngi siy am ay retour yu normal yaa ngi comprendre c'est que eh, sponsor yi ngay wax nii yëpp dara deewu fii mais sans dépend li ngay teg si taal bi ak nit ki ngay dem di ko demander sponsoring wala affaire yooyu lan nga ko wax. jërëjëf ngeen seex quoi. d'accord la mën a apporter lan nga ko mën a apporter. xam nga généralement tey booy ndaw bu ñu ñëwee teg ay initiative yu mel nii. gunge leen nga mën quoi financièrement matériellement nga gunge leen quoi yokk leen doole parce que tey fii da ngay gis booy yu si bëri amuñu moyen wu def yenn initiative yi yéen tey fan ngeen puiser tey doole jooju noonu wala source boobu noonu ci pour teg lu mel nii. non mën jëf muy gars fi nekk ñëpp. seen biir quoi. kese. est-ce que saa lii rek jar na tax ñëpp daw ñëw. lii rek jar na tax xoola Sénégal bi ñëpp wàcc ñëw Daaru Rahman ñu concert sans plus attendre a gars je vais terminer avec Thié vite fait nga wax ma nga woo gars woo ñi nga bëgg a woo après ma jël benn rapport bu soof saay saay ñu waxtaan maak moom tuuti mu may ma ay baar parce que man dama bëgg a rap waaw di leen wax ñeen ñëpp ngeen teel ñëw parce que déjà affaire bëgg nañ mu teel a commencé incha allah parce que vingt 22 heures la le concert di commencé incha allah mais non 21 heures 21 heures maanaam vingt heures désolé 21 heures le concert di commencé incha allah parce que am na dafa am ay boy asiko yu nekk si koñ bi ñoom tamit ñu am talent ñu leen di gis fépp xam nga si si marché yi. mooy kii nu mu tuddati rëy asiko. asiko ah, kii waaw mooy yi. Rio Siko yi gars yi dañu trop. ñu ñu leen gis fépp ñoom tamit si si si koñ bi lañ dëkk ñu ne pourquoi pas ñoom tamit ñu ñëw def seen première partie wane seen bopp. incha allah. moo tax ñoom lañ bëgg ñu commencé à partir de vingt heures ba vingt deux heures incha euh, su ko defee ñu soog a tàmbali ak première liste bi vingt trois heures ñu song concert directement ak guest bi. ngay woo tey ci concert bi ñan ngay woo autorité yi Tëngéej hip hop mouvement hip hop bi ñan ngay woo. ah di woo képp bépp bépp bépp bépp acteur culturel ak képp koo xam ne nii mën nga bëgg bëgg nga si jàpp yaa Euh, ñëpp daal ñëpp amul amul fu mu yem di xale ba si mag di woo ñëpp. di di di wax ñëpp seen seen présence soxal nañu bu baax quoi. incha allah en plus ñu ngi vacances quoi sama gars yi concert dafa war a mën a neex quoi. arki alxuraan ñu ngi vacances sama gars yi sortez les gars go out génn leen seen néegi dafa tàng leen ñu concert. sama gars yi xoola sans plus attendre damay ñëw ma recevoir benn boo xam ne c'est un artiste du label mais il est phénoménal c'est un artiste que j'ai invité dans 16 bars c'est un artiste qu'on a aimé qu'on a voulu qu'on a regardé mais c'est un artiste soft saay-saay capricieux sam waa ji damaa bëgg xoola ngay dugg si bars yu tàng jër rabal rabal ngay toog del rab rabal <laughs> dig mo rabal ma xool rabal <laughs> rabal tuuti rek ma xool. it's Galsen from Galsen ak Kaaru Ndiaye Rose City. moo moo wooy moo wooy check. ay li may mer ëpp li may bég damay neex rek ma lay dégg yegguloo maa la gën a yegg ton ma xam naa fi ma lay fekk dur ma moo gënoon nga ma yedd tànk yàlla ngi fi dañuy tedd xame naa ñi ma war a sedd yaa koy tàngal di gën a sedd. sa xel mooy la nga def lu may def sa fit mooy la nga teg lu may teg man ngay wër ma nag ma lay seet ba may nëbbatu yow yaa bëggoon feeñ su ma bàyyee nga am lu la neex def fay gaaw rek mbiru mës a jeex su ma bàyyee nga am lu la neex def fay gaaw rek mbiru mës a jeex ay maa ñëwaat ñoom ñu koy fàttu ñoom ñu ngi jooy te naan dañu fàttu ay maa ngi si digg bi mënoo ma càttu ay li sama xel la bëggoon tafu tafu tafu tafu ah jee kampe ɓe dolli jom gal sene kaaru ñaari o siri wowa prince jii mu soof oh kono naara de ma raw gen naka mu waaw sant yaa ngi waajal concert de waaw waaw mais bala balaa loolu xaaral mu nuyu Tourfis quoi di di bëggee ñëpp ah di yëpp di nuyu waa Galsen Rufisque xam nga Mbour ñëpp Saint-Louis bàyyi ma kenn euh, di wax ni big moo from Galsen ak kaaru ñu ay siri nem bi kenn dootu ko laaj waaw di la nuyu yow Prince ji waaye Rio Rio plus ngay am ah. waaye tu te connais déjà ji lan nga ñuy waajal. waaw juste on man xam naa. xam naa ni bête de scène nga. boo yéegee da ngay assuré. mais dégg naa ni yaa ngi ñeex ci studio bi yu neex yu génnagul fenn jour boobu day génn wala du génn lan nga ñuy waajal. jour boobu noonu mën na leen wax ni dina génn quand même yéenay quoi. <laughs> waaw yéenay yëpp quoi mooy soof nga. waaw non gars yi loolu dañ leen jox xam nga rek. ñamal leen. gars dañ leen ñamal rek ñun xeexuñu de. <laughs> loolu leen ñamal nii rek. xeexuñoo ñoom mais dañ leen di ñamal. ñamal mooy <laughs> nogal. waaw. <laughs> comme gaal seen kaaru ñaar. aja concert moom da ngeen am yu bees tax. parce que mhm. dama ko seexal sama mbokku rappeur. Mhm. Euh, waaw ku Lil Jazz Hebdo. Mhm. Blacko Nitro y aura d'autres artistes yoo xam ne dinañ teew incha allah. tu connais xam nga tënkee tamit am na ay talent quoi. waaw waaw waaw waaw moo tax concert bi dafa nar a neex quoi. maa ngi ñaxa de ah. mais Baye ñun ñëpp a ngi ñaxa Baye. nice dafa tàng nice. mais wuy ma tey concert mën jëf show. yow tey bu ma la laajoon nan nga def ba rejoindre mën jëf parce que big moo ba mu dalee rap mën jëf créé guñu ko. léegi big moo bañ ko dalee xam au niveau de Rufisque mën jëf xamaguñu ko. du coup tey nga ñëw ba xamante Black O Hebdo Nitro Skills Thié ñoom ñëpp nga dem ba intégré bi label bi comment ça s'est passé fusion bi nan la demee. ok naa si di rafetlu question bi parce que tamit da woon yoon aussi gars yi ma leeral leen côté boobu parce que ñu bëri dinañ ko demandé ah. juste euh, lii famille la quoi parce que ñoom fi ñuy fi ñuy fi ñuy yaroo. ñu mhm. nekk ñoom man fa laa dëkk muy Sanjaba. Mhm. dañoo ñëw fii. yaagul dara maanaam seen seen seen ndaw yëpp foofu nañ ko doxee. Mhm. maanaam ñoo xam ne ñoo fowandoo quoi pour man man noonu laa ko waxee suñu temps booy quoi. te ku si nekk nag daan bay sa waar si benn côté. ok ma nekkoon sama monde musique nekk sama voilà nekk sama artiste bopp nekk sama coin quoi di jóg. comprendre nga léegi ñoom ku si nekk aussi kii mu doon def photographe xam nga kii mu ngi nekk si musique yàlla di def nag aussi cee euh, mais na ñëw. xam nga avant loolu daan nañ gisee daan nañ caution yi show yi photo lépp nice mais mosuñoo am benn link boo xam ne nii dañuy liggéey ensemble quoi. Mm-hmm. léegi un jour nag dafa ma ne ma soxla naa la ma ne ko waaw ah, possible après ñu gisee sur la TV gaal ne léegi benn laaj rek laa lay laaj quoi yow lan nga manqué quoi xam nga. ci <laughs> c'est que dafa neex làmmiñ booy bi. <laughs> noonu ma laaj noonu. Mm. moo ma gënal milliardaire bi ma tiim na ma loo bëgg. lan nga manqué. lan nga manqué. ok <laughs> nga ne ko lan. Ah, ma wax ko li ma manqué. te li ma hmm. manqué ay saa yi nii moo ngi nii rek. moom mu proposé la ko mu proposé la ko. mu proposé ma loolu nga gis sentir ci sa bopp. rejoindre structure ah mais vraiment quoi depuis loolu est-ce que gis nga ci avancement. non si parce que voilà ça avance parce que dugal na ci ay son def nañ ay projet vidéo. Mm-hmm. aussi conseil ngi te am na yeneen affaire yu nekk sunu. kanam quoi émission ak man. waaw waaw yaa ngi gis waaw waaw boobu dee ko wax. si dee ko dee ko wax. waaye émission bi. waaw mais dama si génnaat. <laughs> ayca mu ngi noonu sama gars nga woo ñi nga bëgg wax ak ñi nga bëgg a waxal. hip hop Galsen ñëpp ñëw hip hop Rufisque ñëpp teew ñu seetaan si la. say fan say mbokk say am di jàmm. Ah, ak ñi nga xam ne ñoo jotu ñoo ñëw ñoom Nitoriskills ah, hebdo ñoom ñëpp. Lil Jëz di ko shout out de passage mu ngi fi mais temps bi moo ñu ko mayul. Ah, ñu bàyyi la vite fait nga ta nuyoo tàggoo vite fait wax gars li nga bëgg a wax yëpp. tu sais xam nga woote bi moom dañuy gën a dool yi rek dañuy gën a ñaax mais côté communication gars ñu ngi si bu baax macha allah. parce que mën jëf moom côté boobu pare nañ si. naa defar nañ ay affiche. ay yi ñu koy tas. affiche yaa ngi nii kon yëgalaat moo am rek. pour man quoi yëgalaat noonu dafa baax mais affaire moom mu ngi avancé nank nank quoi. waaw léegi di si woo aussi sama sama waa koñ waa Sanca ba leen si woo bu baax vraiment di si woo sama gaay yëpp. di si woo waa secteur bi aussi nañ génn ñoom ñëpp waa Darou Rahmane guy àjjana ñoom ñëpp waa Téena guy ñëpp partout partout da woo si si bés bi quoi. concert bu na la neex incha allah te. di ngeen am ay voilà ay nouveauté yu garaaw incha allah di ngeen am ay nouveauté bu dul man kase rek euh, gars yi ngay gis ni yëpp ñu ngi waat seen affaire te on aimerait bien que ngeen fekkee ko ngeen xam ne euh, booy yooyu daal dañuy liggéey quoi waaw te ngeen gën a jàppale booyu aussi parce que ngir mi euh, yombul quoi yombul vraiment yombul du du du question xaalis sax mais ñaax rek dara la quoi pour man. dinañ gën a booster booy quoi. incha allah mu ngi noonu sama gars yi le rendez-vous est pris le samedi 15 juillet à partir de 21h. Mën Jëf show incha allah avec. waa Menjef Studio, vous aurez Hebdo, Big Mo, Lil Diaz, Nitro Skills, ainsi beaucoup d'autres rappeurs, Big Lim, Bourmak, Pispa de Legend, hip hop Galsen hip hop Rufisquois ñëpp a nar a teew incha allah et moi je serai de la partie incha comme si Rio Plus aussi dinañ fa teew merci beaucoup à Khalifa merci beaucoup à Nitu Fi pour cette euh, tenue merci beaucoup à Rio Plus et tous les gens qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette émission mention spéciale Max Plodio mais du ma dox di fàtte sama photographe caméraman sama Nitu Fi Khalifa maa ngi lay bu baax moo jee. aja sama gars yi bëggee rafet na de gain waay mo waay man jëf la yow rabal ma yow man jëf la yow doo si taan mais xam nga sa temps ah. doo ñëw baale amuñu sa temps nga ni jubal bii góolu amuñu sax kan nga ni esar sa farkan nga si fan nga ni dugg si poos loxo day génne rek <laughs> nga këta loxo bii loxo day génne rek nga pour di bind lu xeeñ eh. <laughs> P-Boy